kon mbokk yi alhamdulillah ñu ngi santaat suñu boroom ci dajawaat ci am néegam ngire jël benn bind ci bindi lislaam yi ñu koy tuddee fiq ñuy sukkandikoo ci suñu téere bi di risala bu ibn abi zayd al-qayrawani ñu yegsi woon ci fanweereelu bunt bi ak ñaar war a jël la nga xam ne moo ca mujj su dee da nga yor traduction bu xonq bi ñi ngi ci page soixante-quatorze bu dee da nga yor Samarudaani bi ñi ngi ci page quatre cent quatre-vingts ci troisième ligne bi rek walil mar'ati an taftadiya min zawjiha bi sadaqiha mi ngi noonu li des ci buntu 32 bi bariwul walil mar'ati an taftadiya min zawjiha bi sadaqiha Samarudaani 480 ci troisième ligne bi ala kulli xaal mbokk bu dee gis nañu ko bu ñuy jël suñu bind bu jëkk suñu boroom dani walil mar'ati dana ñeel jigéen an taftadiya min zawjiha mu jotoo ca jëkkëram bi sadaqiha ca can gam ko cane woon aw aqalla wala lu ko yées lu ko yées aw aksara wala lu ko ëpp ida lam yakun an dararin biha su dee nekkul ci lor gu nekk ci moom buñ koy lor fa in kaana an dararin biha bu dee daa nekk ci kaw lor guñ ko lor ci moom rajaat bima aatathu dana delloo ca lam ko joxoon wa lazimahu lxulu dana yey ca ka nga xamee ne nii mooy jëkkër dana war ca jëkkër ja mu daldi summi konte ak soxna sa walxulu talqatun la rajaata fiha la nga xam ne nag moom mooy summiku fase lañ koy jàppe goo xam ni ak delloo amu ca illa bi nikaahin jadidin bi ridaaha xanaa lu dul ci sëy bu bees luy tege ca gërëm ga nga xam ne soxna si da koy gërëm mbokk jullit gis nañu diine lislaam mooy diine gu ànd ak ak yaatu xat-xat yi am ci yeneen diine yi amu ca loolu moo tax ba ab sëy jigéen duñ na ko maadaama dugg nga ci sëy bi rek léegi jaam nga lu la neex muñal lu la naqari muñal amoo benn pexe boo ci génne déedéet mbokk mbir mi demewul noonu suñu borom mu ni fa in xiftum alla tuqima hudud allah fala junaha alaykum fi maftadat bi suñu demee ba sëy bi fam waroon a tege la nga xam ne moom la góor gi waroon a def lànk ne ne du ko defal soxnaam soxna si am na droit jotu ci benn gannaaw bu mu ko ñaanee baat mu bañ mu ne ko day lang ma joxoon kon mi ngi nii teyel sa can man maa ngi dem aaya yi bi mu wàccee doonte ni lislaam xamu ko woon kaka jëkk a jëfee mooy soxna saabit ibnu qays saabit ibnu qays moom moo daan jottalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yi acc ak jamono yi mbooloo bu bari waaye soxnaam nee na biñ ko koy may xamu ko ñu may ko ko gannaaw ba ñu daje ci néegu sëy bis mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ay yómi yàlla yónni saabit day ayibaluma diineem ayibaluma jukkoom waaye nag dëgg dëgg dëgg dama ko bëggul bëgguma ko te bëgguma def ak kéeféer ci biir lislaam te mooy ma nekk ak moom ci rôle bi soxna war a doxal dama ko doxal ci moom ndax bëgguma ko loolu it mbokk dañuy gis kii di saabit bindam nekkul woon bind boo xam ne nii bu taaru la waaye ñoo xam ne yonent bi alayhi salaam daana wax ni yàlla du xool seen jëmm yi du xool seen alal yi yàlla li muy xool mooy seen xol yi ak seen jëf yi mooy bu dee taar rek ind la fekk baax waaye ñoo dàq bokkaale ci kaw suuf kon it nit ki yàlla mën na koo nattoo mu am melokaan boo xam ne taaruwul dara waaye fekk dëkk ba moo fa gën saabit boobu dafa mu mujj faatu ji ci sabilillah naka ko yonent bi bégale woon ba muy dund ne àjjana la jëm ca la nga xam ne mooy ku fekk tafsiru qad samia da nga gis ni ma nga mujj daanu ci yemaama waaye bi soxna si waxee lii yonent bi alayhi salaam na ko waaw waaw léegi moom dalaa cene woon benn jardin mu ne ko yëm yàlla yónni na jëlaat jardin su bëggee sax ma tegal ko ci yonent bi na ko déet jox ko ab jardin rek loolee kon ki nga xam ne mooy soxna bu ñaanee borom kër baat ci loo xam ne lor daa tege ci moom ci déglul bu baax yow soxna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ayuma imraatin saalat zawjaha talaqan fi gayri ma ba'sin fa haramun alayha raihat aljanna mi ngi noonu képp koo xam ne jigéen nga nga laaj sa jëkkër tas te amul benn lor boo xam ne gis nga ko ci sëy bi da ngaa bëgg a tas rek ngir changer jëkkër mu ne la nga xam ne mooy raihatul janna di xetu aljanna du la sa xeeñ loolu kon ci kabair bakkaar yi gën a màgg ci bakkaar yi ci la bokk amma nag bu dee lor dafa am lor ba na doon lii soxna si wax wala ñu dem ba mujj nga yëg ci moom feebar boo munte wéyaale wala lor goo xam ne ci jukk ji ñaaw joo munte wéyaale su boobaa islam may na la nga delloo ko canam lii mu wax fi ci téere bi ne lu ko ëpp loolee di borom xam-xam yépp ñoo ci d'accord te mooy góor amul droit jël lu dul lam cane woon soxna sa wante ne boo demoon ci mazhab Malik ñoom nee nañ góor am na droit laaj lu ëpp loolu su dee ne kay amul benn lor bu def soxna si lëkka nii it naka noonu mooy góor am na droit ne soxnaam loo teg sama loxo rek moom nga sa bopp su ko defee bu doon ab téeméer la ko jox sax moom na boppam mu ne nag lii lépp day fekk ni ndaw si moom amul benn lor bu jóge ci jëkkëram di ñëw ci moom waaye bu dee ne jëkkër ji moo ko bundu xatal di ko lor suñu borom mu ne wala taaduluhunna li tazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna bu leen leen xatal ngir jël la ngeen xam ne moom ngeen leen joxoon ba nga xamee ne su booba xaram na ci jëkkër ji muy jël loolu même bu doon da ko koo jox ba pare it soxna su bu demoon ci attekat ba ba attekat ba gëstu ba xam ne kat waa ji moo doon lor soxna si ca bëggoon rek nanguwaat canam moo tax mu ne rajaat bi ma aatathu day jëlaat la nga xam ne moom la ko joxoon ca la nga xam ne mooy ndigalu qaadi bi léegi nag tas nañu soxna si delloo na can gi bu dee ne mazhab maaliga ñoom dañu ne loolu fase lañ koy considéré fase la mooy talaq fase la boo xam ni waa ji amul droit di jëlaat soxna si lu dul ci ndigalam yaakaar naa boo fekkee dar si passé góor bu fasee soxna benn yoon tant que idde bi jeexul heure bu ko neexee am na droit jëlaat ko ndax soxnaam la ba tey ñaareel ba naka noonu suñ demee ba ñetteel ba nag la koy doog a xaraam lu dul mu séeg beneen góor amma bu dee soxna si da koo jox alal ngir summiiku ci moom fam nangoo alal ji rek dañ naan sëy bi tas na ci mazhab Malik soo demoon ci yeneen mazahib ñoom dañ naan kenn du ko tudde fase dañ koy tudde fasq mooy sëy bu ñuy teggi rek te loolu kon kenn du ko considéré ci ñetti fase yi xaraamal kon soxna si bu doon tane ne fase woon nga ko ñaari yoon ngeen am problème mu jox la alal nga nangoo ko kenn du wax ne fase nga ko ñetti yoon heure bu la neexee mën nga ko takkaat waaye bu dee ci mazhab Malik ñoom dañ naan déedéet alxulu talqa fase la kon seen diggante day xaram ba faw lu dul nag ne jigéen bu ngeen summi konte ak moom it su boobaa am na droit am nga droit proposé waat ko bu ko neexee nga indiwaat ba ñeen can ñu mayaat la ko muy sëy bu bees waaye daal xamal ne yaa góor ñépp yéena ci yem loolu mbokk mooy bind bañ jëkk a jël mu jëm ci wàllu ak summi konte su doonte ne ni am na ku am laaj bu jëm ci loolu ñu laaj ci bala ñuy jàll wala boog ñu dem ci beneen bunt naam bismillah naam naam bismillah waaw loolu dana ñëw ci kanam loolu lañ ko dexa daana loolu dana ñëw ci kanam mooy attey doom yi dana ñëw ci kanam naam ala kulli xaal bu dee amuñu laaj ci wàllu sumi konte kon incha allah ñu jël suñu waaw bismillah naam waaleykum salaam soxna si dafa ko laaj jëkkëram mu ne moom summeeku naa ci moom ku góor ki ne man musuma koo fase wala kulli xaal moo tax mbokk lislaam lépp lu aju ci wàllu faseeg wàllu sëy suñ borom da koo bëggal ay seede fa ashhidu zaway adli minkum lépp dañ koo bëggal seede ngir miim ëllëg la ñuy bañ maadaama bu soxna si amoon ay seede yu seede ne nee na ko man kat damay summi compte ak yow jëkkër ji na ko jox ma mu jël xaalis teg ci loxoom seede yi seede ko sëy bi tas na maadaama amuñu nag ay seede soxna si wax na waxam jëkkër ji ne loolu musul am musuma ko fase ah su boobaa cosaan la ñuy dellu cosaan mooy lan mooy sëy moo fa amoon bala ñoo saxal fase preuve moo koy saxal te waxi ndaw si kese kese du tax ñu nangu preuve boobu su ko defee ndaw soosu bu dee daa bëgg génn ci sëy bi na dem ñaan ko baat mu bañ su boobaa mu dem ne da koy jox la nga xam ne mooy ak canam delloo ko ko su refusé ne du jël can gi nag su boobaa ñu doog a dem ci attekat attekat te sëy bi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam kon ñu jël beneen bind bu bees mu ne wa talaaqul abdi talqataan lii di fase jaam ñaari fase rek la am gannaaw ba soxna sa aram ko wa iddatul amati haydatan lii di idda ba jaam bu jigéen war a iddewoo buñ ko fase ñaari règle lay doon wa kaffaratul abdi kal xurri waaye nag kaffaara ba jaam di def ci bu dee dafa waat wala dafa def zihaar ci soxnaam ak lu demee noonu naka góor di defe la koy defe bi xilaafi maani maani alxuduudi wa talaaq musafa noog nag la nga xam ni mooy yeneen acte yi jëm ci loi yi ak fase yi bu dee loi yi ak fase yi jaam am na statut spécial amma bu dee kafaara moom jaam du kafaara day kafaara na góor di kafaara mu bàyyi bind boobu ubbi beneen bunt bu bees beneen bind bu bees boog wa kullu ma wasala ila jawfi radii lépp loo xam ne yegg na ci biiru kañuy nampal fil xawlayni min al labani mu nekk ci biir ñaari at ya ca meew bay jóge ca soxna sa ko nampal fa innahu yuharrimu loolee dana araamal seen diggante lépp luy wàllu sëy wa in massatan mi nan wa in massatun wahida donte ne benn muucu dong la xale ba muucu ca weenu ka nga xam ne moo ko nampal wala yuharrimu ma urdi'a ba'da al-hawlayni donte ne du araamal lañu nampal gannaaw ba mu amee ñaari at illa ma qarruba minhuma ka shahrin wa nahwi xanaa lu jege ñaari at ya lu mel ne weer wala lu mel noonu wa qiila wa shahrayni am nañu jàpp ne mën naa dem ba ñaari weer walaw fusila qabla alxawlayni fisaalan bu demoon nag ba fer gannaaw ñaari at ya de avant ñaari at ya fer goo xam ne istaghna fihi bi taam xale bi léegi dana doyloo mën a demee ci ñam kese lam yuharrimu ma urdia ba'da zalik du ko araamal la nga xam ni moom lañ ko nampal gannaaw loole wa yuharrimu bil wujuri wa sauuti des na araamal it ci nampal ka nga xam ne dañ koo xol meew ma sotti ko ci gémmiñam ga wa sauuti sawut ak la nga xam ne dañ koo jaarale ca bakkan ya ba mu yegg ca biiram ba wa man ardaat sabiya koo xam ne daa nampal benn xale fa banaatu tilka almar'a mboolem jigéen soxna soose wa banaatu fahliha ak mboolem doomi jigéeni jëkkër jamiy seel jamono jooje ma taqaddama aw taaxar na doon dafa dañoo juddu woon avant ñu koy nampal wala après ñu koy nampal ixwatun lahu ñoom ñëpp ay doomi ndey la ñu doon ñeel ko wali axiihi nikaahu banatiha amma frère ba mu bokkal nag ca moom soxna si nampalu ko moom mën naa ñëw takk si doomi soxna yooyee mi nga noonu mbokk kon kii day indi beneen atte mooy atteem nampal xëy na jamono ji ñu toll tumuranke na waaye bari woon na lool suñu jamono yi passé rawatina dëkk arab yi moom lu sii woon la ci ñoom nga jël sa doom jox keneen mu nampal ko waaye day wax ni bépp xale boo xam ni ci ñaari at la toll jigéen jël ko nampal ko nampal boobee même bu doon da koo jox ween bi mu muuc benn muuc rek ba mu yegg ci biiram loolee araamal na seen diggante dañ koy considéré moog doom bi mu jur loolu nag mooy mazhab Malik waaye boo demoon ci yeneen mazahib yi ñoom dañu naan fokk mu mat juróomi nampal am te ñoom ñu ñuy wax ñetti nampal ndax la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax naan la yuharrimu massatun wala massataan benn nampal wala ñaari nampal du araamal waaye almuhim lu mel ni mazhab Malik ñoom dañoo jël rek yaxu aaya bi wa ummahatukum allati arda'nakum yaay yi leen nampal kon xale daal fu ko jigéen joxe weena mu namp su booba araam na ñeel ay doomam loolu nag bu dee ci ñaari at yi la wala boog fekk ne daa jege ñaari at yi mooy deux mois un mois ak deux mois yu teg deux mois su boobaa ba tey dañ koy considérer mu ne nag loo xamee ni nii kii daa dañ ko nampal un an arrêté nampal bi mu commencé di lekk ñam ba soxlaatul ween mu ne su boobaa buñ ko nampalee it loolee du araamal seen diggante maadaama feroon na ba bàyyi woon ne ween bay lekk-lekk boppam loolu du araamal seen diggante bokk na loo xam ni tey jigéen ñi rawatina jigéen ñi yiy liggéey dañ koy def mooy li ñu tuddi tiirle mooy jël seen biberon def ci seen soowu bopp soow boobee bu ñu ko jëlee jox ko beneen xale mu nampal ko ci biberon bi doon ci gémmiñ gi lañ ko jaarale wala ci bakkan yi lañ ko jaarale donte ne musul gis sax yaay da ko nampal teewul yaay jooju yaayam lay doon day aram seen diggante comme mu mel ni doom bi mu jur loolu mooy àtte ci wàllu googee mu wax amma nag bu dee ne la nga xamee ne nii moom mooy ki nampal benn doom bu jigéen ki nampal benn benn xale góor la am jigéen soo bëggee comprendre liñ lay wax rek moog doom bi mu jur ñoo yem lu araam ci doom bi mu jur rek araam na ci moom kon wér na ne ni dootul mën a sëyat doom yi soxna soo sëy abadan mi ngi noonu dootul mën a sëyeeg ay baayam dootul mën a sëyeeg ila axiri lépp lu araam ci doom bi mu jur rek araam na ci moom beneen mbir bi nga xam ne dafay lënt ñu bari mooy borom kër bi soxna si nekkal ki nga xam ne nii dafa ñoo nàmp ci jamono jooje borom kër googu dañuy jàpp ne baayam la képp kuy nàmp ci jigéen borom kër gi ñuy sëyal jamono jooje sa baay la kon boo li mi doomam góor ak jigéen araam na sëy di dox seen diggante loolu kon muy benn atte boobu atte boobu nag ñaar mën na cee nekk benn mooy bi mu ci tudd moom moo di ni nii moo doo ngi nii moom mi ngi ñëw nàmpoo ci faatu faatu boobi borom këram bàyyi lañ koy jàppe ci moodu waaye moodu amoon na benn frère bu ñuy wax samba kon moodu mi mboole mi doom yi jigéen yi faatu bi yor aram na ci moom waaye samba bi mu bokkal ndeeg baay nag samba bi mu bokkal ndeeg baay ci kii nàmpalu ko loolee moom engagé wu ko ci dara mën naa siit ñoom loolu day am beneen cas bi it mooy tey jii soxna si moom mi ngi ñëw di sëy si ci kër gi bi muy sëy si amoon na doom bu jigéen boo xam ne fer na mu ñëw sëy si ci kër gi indaale doom bu jigéen bi muy nàmpal jëkkëram joojee am ay doom yu góor doom yu góor yooyu am nañ droit takk doom bu jigéen ba feroon avant seen tante di sëy si waaye ki nga xam ne da koo indi di ko nampal ci jamono bi ñuy siig seen baay xaraam na sëy di dox seen diggante loolu kon moo aju ca la nga xam ni muy ak nampal doonte ne ni ñun aadoo wuñ ko suñu gox yi allahuma lu dul nit amoon laaj bu mu ci doon laaj avant ñu dugg ci beneen bunt bi ci tegee boo xam ne amoon na laaj ci wàllu nampal avant ñu dugg ci beneen bunt bi naam naam comme loolu du suñu aada naam kon dañuy jël bunt bi nga xam ne rek moo ci tegee mbokk bunt bi ci tegee mooy fanweeri lu bunt ak ñett ci téere bi di risaala muy moom it bunt boo xam ni doomu aadama yi dañ ko soxlawoo lool muy baabun fil idda muy jàngale idda bi jigéen bi war a iddewu ci heure boo xam ne dañ koo fase wala muy tënj wan nafaqa ak dépense yi nga xam ni góor yoral na ko njabootam wala istibra ak xool ga ñuy xool ndax jigéen mi ngi ci ëmb am nekkul ci ëmb mi ngi noonu muy sakku ak mucc ci ëmb loolu kon mooy bunt bi ñuy nar a jàng suñ ci jël suñu bind bu jëkk mu ne wa iddatul xurra la nga xam ne mooy idda gor al mutallaqati salaasatu al mutallaqa boo xam ne dañ koo fasi salaasatu quruin kooku war naa gis ñetti règle kaanat muslimatan aw kitaabiya na doon jigéenu julit la wala muy jigéenu ahlul kitaab buy sëyeg julit wal amati wa man fiiha baqiyatu riq jaam ak képp koo xam ne desutug njaam daa nekk ca moom qaraani dafay toog moom ñaari règle kaana zawju fi jamiihinna xurran aw abdaha na doon ñi ñu wax seeni borom kër ay gor lañu wala ay jaam lañu wal aqraau hiya al athaar loolee ñuy tudde nag ay reegal moom mooy laab ga ñuy laab laab gay nekk ci diggante ñaari reegal ya alati bayna dammayni mooy ba nekk ci ñaari deret ya fa in kaanat mimman lam tahit su dee ne soxna sañu fase bokkul ci ñuy gis baax aw mimman qad yaisat min al mahit wala boog bokk na ca ña dem ba passé la nga xam ne mooy gis règle mi ngi noonu fa salaasatu ashhurin fi lxurri wal ama su boobaa itamit ñetti weer la ñuy considéré ca gor ak ca jaam yépp mi ngi noonu mbokk gis nañu ni suñu borom subhanahu wa taala dafa def jigéen bëgguñu ñu koy foye góor gi jël ko tey ëllëgee jël ko ëllëgee jël ko looloo tax bépp jigéen boo xam ne mas na ànd ak góor ci lal heure bu teqalikoo ak moom fokk mu toog ab diir avant muy dem ci beneen góor loolee am na ay mbir yu ci gaa yi wax ci wàllu science doonte ne ñun suñ téere borom lañ gëm avant science ala kulli xaal am na ñu naan doomu aadama bi soxna si borom këram ba muy àndal ndox may jóge ci moom di nekk ci moom balaa set fokk mu am diir lu jege trois mois règle yi muy defit da koy gaaw a génne kon bu defee trois règle day set ci moom wecc waaye loolu ñun taxul ñuy wax suñu borom daal képp ku faatu bala ñu laa may keneen borom bi def na ab diir boo xam ni dañ ko mën a toog lu dul mu aju ci ni ëmb na wasin na képp ku ñu fase naka noonu xatta képp ku jotoo ak borom këram sax wala sëy boo xam ne sëy bu yàqu la sëy erreur la muy fasq ñu teqalee ko du tey fokk mu am benn idda buñ ko jàppal idda boobee même bu doon benn règle kese loolu na nga lay jàngal mu ne bu dee góor dañ koo fase su boobaa dafay toog ñetti xuroo ñi ngi wax règle waaye borom xam-xam yi dañu juyoo ci loolee suñu borom di wax wal mutallaqaatu yatarabbasna bi anfusihinna salaasata quruu lan muy quruu bu dee mazhab malik ak borom xam-xam yi gis-gisinam ñoom dañ naan mooy laab gi nekk diggante ñaari règle yi su ko defee jigéen bu doon dañ koo fase tey fekk mi ngi laab mi ngi laab ñu fase ko même bu doon ci suba sa daa gis règle dañuy jàpp ne am na benn laab ba pare kon mu gis règle règle ba set na ñu ne kon am na ñaari laab mi ngi noonu mu gis troisième règle règle ba set na ñu ne am na ñetti laab mi ngi noonu su règle ba setee rek am na ñetti laab loolee da ngay gis ni mooy atte bi borom xam-xam yi di wax ci règle yooyee nga xam ne nii moo am na xam ndax li ma wax leer na wala déet fase nañu soxna si loolee benn laab la te jàngoon nga ci gannaaw ni kenn amul droit fase soxna lu dul daa gis règle ba laab ci laab goo xam ne àndoo ci ak moom loolu la ñuy considéré fase nga ko benn laaba nga ko mu gis premier règle am bi mu gisee premier règle am ba laab ca ñu ne kon deuxième laaba nga ko mu gis troisième mu gis deuxième règle am bu gisee deuxième règle am ba laab ca ñu ne troisième règle nga ko ñu ne troisième laaba nga ko loolee nag mooy mazhab Maalik mooy kon soxna si su dee ne moom fase nañ ko mu gis la nga xamee ni nii moom mooy ñaari reegal ba laab ca su boobaa mënees na koo maye bu gisee ñaari reegal ba laab ca boo boobaa loolu dañ naan mënees na koo maye amma bu dee yeneen borom xam-xam yi ñoom dañu naan déedéet xuru mooy reegal ci boppam fokk mu gis ñetti reegal yu mat sëkk ñu doog koo mën a maye loolu mooy seen différence kon ci ñi jàpp na règle mooy laab ak ñi jàpp na règle mooy deret ji ci boppam loolee kon mi ngi noonu ba nga xamee ni li gënoon a dal xel gën a mucc ayib mooy soxna si bala ñu koo may nañ bàyyi ba mu gis ñetti règle yu mat sëkk su boobaa mboole mi borom xam-xam dëppoo nañ ñi mënees na koo mayee ci wàllu googee mu ne nag bu dee jaamu moom ñaari règle rek lay gis mu ne bu dee ne soxna si moom nekkul ci ñi gis règle wala boog paase na gis règle loolu it suñu borom yàlla wax na ko ci téeréem bi mooy ñi nga xam ne nii gisuñu règle ak ñi musuñu gis règle su boobaa fa iddatuhunna thalathatu ashhur ñetti weer lay toog xale bii dañ ko may jëkkër commencé gis règle jëkkër bi fase ko dañ naan na toog ñetti weer su amee ñetti weer mënees na koo maye soxna si dem na ba yegg ay 60 ans wala ala kulli xaal passé ni gis règle jëkkër ji fase ko dañ naan nañu xaar trois mois dog koo maye atte boobu la wax ca wàllu googe suñuy jël suñuy beneen bind mu ne wa iddatul xurra la nga xam ni moom mooy idda bi gor war a toog al mustahaada bi nga xam ne deretam dafay continuer di wéy awil ama wala boog mu nekk jaam fi talaaqi ca fase gañ ko fase sanatan ku mel noonu day toog at doog a mën a sëy wa iddatul xaamil bu dee idda nag koo xam ne daa ëmb fi wafaatin ci jëkkër ja faatu aw talaaq wala ñu fase ko wa mooy wadu xamliha ku mel noonu mooy na wasin ab ëmbam fu mu ko wasina rek mën naa sëy kaanat xurratan aw ama aw kitaabiya na doon gor la jaam la dafa bokkoon ci ahlul kitaab fu mu wasina rek am na droit sëy walmutallaqatu lati lam yadxul biha ka nga xam ne ne dañ koo fase ca kenn musul ànd ak moom ci lal laa iddata alayha ko mel noonu idda nekkul ci moom bu muy iddawu wa iddatul xurra min wafaati min alwafaat bépp idday gor ci jëkkëram ja faatu arbaatu ashhurin ñeenti weer lay doon wa ashrun ak fukki fan kaanat sagira dafa nekkoon xale bu jigéen bu ndaw aw kabira wala mu nekk koo xam ne dafa màgget daxala biha na doon jëkkër ja dugg na ca moom ci sëy aw lam yadxul wala fekk musul bokk dugg ci moom ci sëy muslimatan kaanat aw kitaabiya na doon julit la wala mu nekk ahlul kitaab mi ngi noonu mbokk kon day wax ne jigéen bi nga xam ne daa am feebar deretam di génn kenn xàmmiwul ay régalam ku mel noonu na toog at doog a sëy te mooy juróom-ñeenti weer yiy ëmb ak ñetti weer ya nga xam ni moom mooy ka gis régal di war a toog loolu nag ak taral la gu mazhab malik taral waaye boo demoon ci yeneen mazahib yi dañ naan déedéet kooku nga xam ne deretam dafa continuer ñetti weer rek lay toog fu mu toogee ñetti weer am na droit sëy te it loolu moo gën a logique gis nañu beneen acte bi mu ci indi mooy jigéen dañ koo fase jigéen jëkkëram dafa faatu fekk ne mi ngi ëmb bis ba mu wasinee keroog la idda bi jeex jigéen jëkkër ji dafa faatu ñu wax ko ko mu daal di am pression wasin te loolu léeg-léeg muy bëri di am keroog ba mu wasinee mënees na koo maye allahuma lu dul jëkkër du mën a ànd ak moom ci lal lu dul daa set fas gi it naka noonu léeg-léeg nga gis ñu bëri di ci def ay njuumte soxna si xaaral rek ëmb bi rek moom a jaaxal waaye buy am doom ma koy fase mbokk loolu njuumte la su dee kay dañ koo fase bëgg a teqale ko moom may ko baatam ci biir ëmb bi su boobaa heure bu tas tase rek da ngay gis ne ah seen diggante jeex na amma bu doon daa am doom ba pare nga doog koo fase su boobaa idde bi mën na passé at sax loolee mi ngi noonu su ko defee loolu la ñuy gis ci loolu mu des nag benn question bu ñuy posé mooy bu dee ne nag moom dafa avorté nag dafa avorté bokk su avorté la gën a digg doomu la ca borom xam-xam yi di wax mooy la mu avorté fokk mu nekk muduxa muduxa mooy lan mooy ëmb bi am na quatre-vingts jours am na quatre-vingts jours yonent bi alayhi salaam nee na doomu aadama bi quarante jours yim nekk ci biiru yaayam nut fa lay doon mu teg ca yeneen quarante jours nekk alaqa gannaaw ba nag lay def quarante jours mudoxa kon ëmb bi su amee quarante jours mi ngi noo bu amee quatre vingt jours de presque trois mois muy deux mois yu teg vingt jours ca la ñuy doog a jàpp ne kii kat wasin na lu jëm ci nit waaye bu dul looloo deret la jëm tuur rek kenn du considéré loolu lii mooy daanaka li ëpp ci borom xam-xam yi li ñuy wax wante ne am na ci ay benn benn yoo xam ne ñoom dañ naan maadaama ëmb bi sax na rek bu avorté it day dagan jëkkëram waaye déedéet mu am nag des fois jafe-jafe ci nu ñuy xamee ndax am na quatre-vingts jours am déet su doon lu mel ne mazhab Malik ñoom dañ naan bu dee dafa génne même deret ju dëgër ju jëm mel ni lumb ñu jëloon ndox ba tàng sotti ci tasawroowul dañ naan kon lii mi ngi jëm ci mudxa ala kulli xaal loolu lañ cey wax kon soxna si bu dee ne ne ëmb bi day doog a door un mois un mois et demi loolee bu avorté it dañu jàpp ne deret bi yàqu la rek mais kenn du wax ni dafa accouché kañ la ñuy wax dafa accouché mooy su demee ba dugg ci quatre-vingts jours dugg ci mudxa su boobaa moom su génnee loolu ci nu mu ko fa na mën a génnee bu doon mi ngi ci idda fase am na droit sëy ak beneen góor su dee ni idda jëkkëram ma faatu woon am na droit sëy ak beneen góor amma bu dee loolu amul kii jëkkëram faatu dafa war a toog quatre mois dix jours avant muy doog a sëy ak keneen loolee mbokk mooy atte bi yàlla ca foofu it gis nga ni fa yàlla tarale kii dañ koo fase trois mois rek am na droit sëyi mais kii jëkkëram faatu ñu ne quatre mois dix jours ndax gën a wóorliku ndax kii faatu na mënatul défendre boppam amaa kii dund moom boo ko bëggee jiñ ab ëmb dana mën a défendre boppam mais ki toog la nga xamee ni nii mooy quatre mois dix jours daan ca xam ndax ëmb naam ëmbul loolu mi ngi noonu soo demee ci étude boobu ma la doon wax sànq ci wàllu go jigéen ñi muy yóbbaale ndoxu borom këram dañ naan bu dee jëkkër ji dafa faatu naqar boobu muy àndal day tax ba ndox mi du gaaw a set ci moom bokk yi de xikma alquran suñu borom ne kon yow au lieu de trois mois toogal quatre mois dix jours waaye loolu mbokk wax yi ñuy wax la waaye ñun lañ jëm ci suñu téere borom daal mooy yàllaay atte lu ko neex kii gis réegal toogal ñetti réegal yow doo gis réegal toogal ñetti weer yow sa jëkkër daa faatu toogal quatre mois dix jours bala nga mën a sëy ak keneen lii mbokk mooy atte bi nga xamee ni nii moo aju ci ña nga xamee ni nii mooy ñooñu léegi nag ci li mu wax mu ni su dee ni moom nekk na koo xamee ni nii chrétien la ku mel noonu ñi dañ ko war a imposer idde boobee ca mbokk mi ngi noonu moo di ne ne tey ab chrétien bu ko jëkkëram fase ci jurit la dañ ko war a imposer amul droit sëy lu dul mu iddewu trois règles wala mu iddewu trois mois jëkkër ji dafa faatu dañ ko war a imposer amul droit sëy lu dul mu toog quatre mois dix jours ndax la ñuy bañ mooy mu jaxase mbokk gi mooy jël doom boo xam ne ci jëkkëram la bokk daal di koy dugal ci beneen famille moo tax fokk ñu imposer ko balaa mën a sëy mu toog la nga xamee ni nii mooy idda loolu donte ne mbokk xam ngeen loolu suñ jamono tey jii atte buy imposer amu fi looloo tax ba mbokk di takk ñu mel noonu moom nañ xam ne araamul de waaye ku ko mën a moytu ngallaway na ko moytu mbokk kon bind biñ ci mujj a jël mu ne wa fil amati bu dee ki jaam wa man fiiha baqiyatu riq ak ka nekk ca moom lii di desatu ak njaam shahraani wa xamsun su jëkkëram faatoo day toog ñaari weer ak juróomi fan muy xamsu layaalin ñaari weer ak juróomi guddi maa lam tartat maa lam tartabil kabira fiig nekkul di sikk sàkka jigéen ja âgé zaatul xaydi buy am ay règle bi taxiri bi taxirihi mu gis na kat ay réglam gisutu ko dafa dafa tardé an waxtihi ca waxtu yam daan ñëw fa taqudu hatta tazhaba riba ku mel noonu day balaa mën a sëy na toog ba mu wóor ko ni sikk sàkk amatul ni man mi ëmmuma wa amma allati la taxiidu bu dee ne nag ka nga xam ne dafa doon ab jaam ca moom du gis règle di sigarin ci ak ndaweem aw kibar wala ci ak mageem waqad bana biha ca jëkkëram ànd naag moom ci lal fala tunkahu ku mel noonu kenn du seeg moom fil wafaati ca jamono ja nga xamee ni ni jëkkëram daa faatu illa baada salasati ashhur lu dul ca la nga xamee ni nii mooy gannaaw ñetti weer waaw mbokk kon kii day wax rek ay atte yu muy atte ci ay wàllu ay jaam waaye nañ leen ko fi waxe woon ca suñu darsi yi passé problème mu jaam yooyu nekkul fiq bu ñuy itteel léegi nga xam nga ne tey fii ci adduna bi yépp dëppoo nañ ci abolir nañu affaire yi jaam yooyu nga xamee ne nii jaam naka sharia xamee woon nga xam ne da nga koy jël comme sam xar dem ci marché jaay heure bu la neexee jaboro heure bu la neexee may keneen heure bu la neexee fay ay bor jaam yooyu gisatuñ ko tey ci lu ñu mën a sukkandikoo looloo tax kon nekkul ay mbiram ci lu ñuy mën a jël di ci sori lii kon mbokk moom mooy wàllu diini lislaam lépp loo gis daf koo rafetal suñu yonente alayhi salaatu wasalaam mu ni yàlla rafetal na bind na ak rafetal ci lépp lu mën a doon wallahi la ëpp ci sëy yi tas tey jii suñu ko jaarale woon na lislaam santaane tas mën naa la garantir ne soixante dix pour cent yi duñu tas ba ñuy tasit bu dee ne jaarale nañ ko na ko lislaam defee topp na lislaam wax wallahi lu ëpp ci ñoom it dañ juboowaat ndax lenn lu ñaaw du am ci seen diggante bari na ay sëy yu tas jaare fa tas ba faw mooy bañ tasee wax yu ñaaw ya ca jóge ak jëf yu ñaaw ya ca jóge moo tax ba mënutuñoo àndati loolu it kon ñu bàyyi ci xel bu baax rawatina parents yi képp ko am doom mu nekk ci sëy dee ca wax lu rafet ba baa ndax day continuer wala day tas bu tas amee it nañ cay wax wax bu rafet ndax yàlla mooy wëlbati xol yi suñu borom mu ne wala tadri laalla allah yuhdisu baada zalika amra xamoo ndax yàlla dina indi beneen mbir ëllëg ba ñu waroon a mën a delloo fekk ne wax yu ñaaw ya jëf yu ñaaw ya tax na ba fekk mënuñoo delloo lii kon mbokk mooy suñu diine yal na yàlla sàmmal ñu suñuy sëy ak suñu sëyi njaboot yal na yàlla barkeelal ñu ko àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain naam alhamdulillah xam na bu dee gannaaw darsi bi moom ñu ngi gën a bëgg laaj yi ci darsi yi waaye ku ci am yeneen nit loo xam ne incha allah am na luñ ca xam ñu def ci suñu kéemtaleel kàttan waaleykum salaam wa rahmatullah naam lii mi ngi ci wax ci jullit bi nga xam ne dafa takk chrétien wala mu takk ab juif ku mel noonu lañ ne fokk ñu imposé ko mu daal di toog idda boo xamee ni nii lii di doomu jullit yi kenn du ko jaxase ci seen biir loolee kon ñu ngi ci namm ji kii sa yëg ab julit ama chrétiens yi ñoom seen biiru neen loolee moom seen diine la ñu joo xam ne ñoom ñoo seet luñ cay attewoo waaye daal képp koo xam ne ñëw na ci suñu diine su boobaa idde bi moom da koy respecté bokk ni liñ ci war a jàng dimanche bi ñëw incha allah mooy wàllu tinji gi ñaawlu googu nga xam ne da koy ñaawlu ndax daañ ko imposer chrétien am déet am na ñu ne waaw am na ñu ne déedéet loolu moom du luñ koy imposé waaye ñàkk sëy gi moom ba ñu xam ne yóbbuwul doomu jullit moom dañ ko ko imposé duñ ko bàyyi mu sëy lu dul ne dafa am 4 mois 10 jours wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waxal ci kaw tuuti noo ko moo xam li nga wax de ah ñaari ñaari borom parce que yéen ñi ci kanam xam ngeen li mu wax waaw waaw waaw waaw kan nga war a topp xanaa ka xanaa xanaa ka la ca doy ixtilaaf bu amee ñaari borom xam-xam xanaa ka la ca doy nga war a topp ala kulli xaal ixtilaaf bu amee dañu war a xool ku nekk say wax ndax wax ji am na tegtal bu mu ko teg ki nga xam ne daf lay wax mu ne lii day xadis la boo xamee ne nii mi ngi jóge ci cosantel bokkul ak ki wax rek indiwul benn lay loolee bu dee ne ñoom ñaar ñëpp ay boromi xam-xam lañ amma nag bu dee ne ñoom ñaar ñëpp dañoo wax ci ku nekk dafa indi say lay yow ka nga xamee ne nii moom la wax ja gën a doon lu dugg sa xol loolee ngay jëfee ba baa ngay gis lu gën a dëgër loolu waaye daal la chaque ne yow mi nga xam ne doo borom xam-xam munoo atte ay borom xam-xam fexeel daal ba li ngay wax li ngay jëfe moom nga jële ko ci borom xam-xam borom xam-xam boobee it ka indi ay dalil moom la ñu war a jiital ci ka indiwul ay dalil wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal waaw bismillah naam waaw waaleykum salaam tulka waaw waaw léegi boobu dafa am ay ay problème yu am ci kër gi donc gis naa ko bu ne day des dafay jóge pour dem kër papa àggale ko ci kër léegi dama doon laaj loolu
waaw loolu dafay bokk ci bind yi nar a jàng suba yi nar a jàng dimanche yi bii di ñëw ala kulli xaal lañ cay wax rek mooy jigéen fi ka ak faatu jëkkëram fekk foofu la war a toog ba idde bi jeex lu dul ci lor lu dul ci lor moo di ne ni jëkkëram bàyyiwulu ko kër location ba mu nekk mënu koo fay wala borom kër ga génn na ko su lor amee daal su booba mën naa tuxu waaye bu dee benn lor amul ci kër jëkkër joojee la war a toog quatre mois dix jours mi ngi mel ne soxna bi ñuy fase dafa war a toog kër jëkkëram ñetti weer lu dul la nga xamee ne lor la bu lor amul jëkkër ji amul droit génne ko moom amul droit génn loolu daal kon la ñuy wax ci wàllu googee ba baa ñuy fii daje nag dimanche incha allah dañu am bind bu aju ca loolu naam wallahu aalam naam ala kulli xaal mbokk kon bu dee ne amuñu laaj yu aju ci loolu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala li fi jot a dégg yal na yàlla barkeel ko lépp loo xam ne ni jub na ca ñu jëfe ko lépp lu ci ay njumte it nañu fàttali ko ne suñu imam bu mag ba imaamu malik imaamu daarul hijra te maa ngi fàttali ndaw ñi bu ñee mazhab malik buñ jàpp ne malik mooy kan imaamu malik imaamu ahlu sunna la nekkoon ca jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon ca sangu taabiina ya borom xam-xam ñi daan jógee goxi iraq iran fi islam nekk yépp jëm madina ngir fekki imaamu malik imaamu malik boobu bu masaan jàngale ba pare moo daan wax naan amul kenn ci ñun nag lu dul am na lu ñuy jël ci ay waxam am luñ koy delloo ba mu des borom xabru bi da yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolee kon la ñuy wax ca wàllu googe moo di ne ni ñuy ñaan rek lépp loo xam ne ak njuumte la yal na yàlla xamal ñu ko bañ dellu ca gannaaw waaye lépp loo xam ne nag jub na jëppoog ngërëmal yàlla yal na yàlla wërsëgal ñu jëfe ko cam nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain